bokki jullit yi bokki taalib yi bokki dëkkandoo yi maa ngi sant suñu borom teewaat nañu fii ci ndigal Cheikh Sidi Mokhtar ci ni ko daa defee rek dañoo am ndigalal jottali eh, ndigalal sëriñ bi ci ni ko daa diglee rek mu di bu àllarba ci suñu borom yóbboo ñoom ñi nga xam ne du ñoo fi nekk rabata bi ñi nga xam ne dañoo tënk suñu bopp ci seen liggéey yëpp di alxuraan ak lu ci aju sëñ bi jig joxe la ndigal nañ ko daa defee nañ ko ni defee nañ ko ni defee moo di jàngal xuraan jàngal xuraan ci fépp nag fépp Sénégal gépp eh, eh, tàmbalee Touba rek wër Sénégal gépp foofu daara nekk daara alxuraan nekk rek eh, jox na la ndigal na nga bu àllarba na na ngeen teewlu te jàng alxuraan na mu gën a selle jàkk yeeg jumaa yi yëpp ñëpp teewlu ñi mën a jàng jàng ñi nga xam ne itam am nañu yéene yi jàng te am man-manub mën na a sàkku ay wuti ay xéewal yóbbu ko fa kenn ku ne daal jële gën a gën a jàkk jële jege loo mën si lay yóbbu fa ay xéwal nga def ko yóbbu ko fa bokk ak ñi nga xam ne ñoo ñoo jàng ñoo jàng moom pas-pas bi benn la liggéey bi benn la kon nag ne ko ñëpp dégg ñi nga xam ne yàlla may la leen yàlla dogal na ci ñoom ñoom alxuraan la ñuy liggéey ñëpp ay daara wala euh, ñu bu soobee ñu dem ci jàkk yi euh, am ci euh, am ci ma sëkk teewlu gu ma sëkk yi ne ju ma sëkk parce que ne jàngal xwaan nu mu gën a selle am ci yéene nag nu bokk ñaan ba mu ci àggee ñaana seex si di waxtaan mi nga xam ne moom ci suñ kanam ànd ko kilifa lislaam réew yëpp ñu leen di leen fi lu yàgg yàgg kàttan leen dañu yàgg joxe ndigal loo xam ne ci suñu borom rek la jëm ci lépp lu ci moom am ci yéene eh, ñaan yàlla sàmm kilifa yi te bàyyi leen fi wéral leen kàttan na leen yàggal leen lool ci liggéey bi eh, suñu boroom eh, eh, def jàmm ci réew mi alhamdulilah sant sax moo war ndax eh, ay yi bari na lool borom ñu ngi ciy musal senegal yaakaar naa ne dina ko ci gën a musal ndax Sénégal dañoo am dañoo am pàgguteef dañoo am ñu leen faggul loolu feeñ na ci ci leen weesu waaye yàlla na ci gën a feeñ moom def fi jàmm te gën fi dëgëral diine gën ko fee yaatal gën fi gën gën gën a gën gën a kattanal ñi nga xam ne ñoo ko bokk ñépp war a jëm ci diine war ko gën a sàmm war war ko war ko def muy seen itte def ko muy seen liggéey def ko muy seen yaakaar ñoo ngi ñaan bu baax a baax a baax eh, yàlla eh, wàcc def jàmm ci réew mi te boole nu ñëpp gën noo gindi gën noo gindi ci eh, ci lislaam gën noo gindi ci Sëriñ tubaa gën noo gindi ci képp ku baax gën noo gindi ci lépp lu baax bën mën a def suñu yitte jépp mën ko jëmee nag ci suñu boroom ndax yitte jooju jépp Euh, wut jëm ci suñu borom rek la kon nag ñu ñu gën a dolli yitte jooju ban gën a mën a ban mën a gën gën a jëmee suñu bopp ci suñu borom parce que yéen sax dàkk ci jaamu yàlla kon li ci am solo rek sëriñ bi euh, alxuraan mooy lépp mooy bunt bi euh, te te moo moo moo mooy mooy mooy mooy mooy buum gu réy gu sell gii nga xam ne moo dox suñu diggante ak suñu borom waaw kon nu ci bu baax ak suñ tey bu nu amoon bu nu amoon téeméeri loxo nan nan nan ci jàpp eh, kàllaamatu ci bu baax a baax a baax a baax a baax bañ ko booleek dara ndax lu nu ko war a booleel ci yitte adduna rek suñu borom noppi na ci loolu noppi na ci noonu kenn ku ñu la ci sa wàll foo nekk dana la fekk suñu borom dana la fekk ak moom mm. waaye nag ah ndigal moom yàlla moom des koy wut mën ngaa bu la neexee mën ngaa bañ wut dara te loolu yàlla noppal la ci fa nga ne mu fekk la fa ak moom waaye yàlla moom des koy wut kon boo buñ dee wax taalu bi ak taalu bi wut rek la ak taalu bi baatu yaram la mooy wut waaw kon nag si yàlla moom dañ koy wut loolu lépp rek wut yàlla la yitte ji nga xam ne moom sa nga xam ne yitteem jëpp ci loolu la ko def di ko di ko di ko di ko di ko di ko wuutee ngërëmal Sëriñ Tuubaa ndax Sëriñ Tuubaa moom yàlla rek lañ mën a lañ lañ mën a wuti ngërëmam moom soxlawul dara biñ ko gisee biñ ko noppi gis gisu fi dara bëggu fi dara nekku ci dara loolu ci borom rek la nekkoon. loolu nag moom loolu mooy yitteem loolu nag eh, moom moo moo moom la bëgg ci noonu. ndax su muccub adduna ak suñu muccub la bëgg ci noonu. te loolu nag ala kulli xaal moo la koy may. Eh, kon nag eh, nu gën a góorlu bu baax a baax a baax a baax a baax. Euh, suñu kem kàttan euh, ñaan suñu kilifa gii nga xam ne tey euh, lépp lu ma am yeneen na ko ñu ngi ko bokkal ñépp mu kilifa diine yi mu mu jullit yi mu ñëpp kooku ñu gën a ñaan yàlla bàyyi ko fi ndax mm. yàggal ko fi te kattanal ko ba mën a gën a taxaw mm. liggéeyu Sëñ Tuubaa bu rëy bii kon nañ góorgóorlu bu baax a baax sax dàkk ci jaamu yàlla ak liggéey sëñ Tuubaa te yàlla rek tax ah, yàlla nañ suñu borom noonu ma ko waxee eh, sàmm nu te aar nu eh, te gën noo gindi te boole nag ndimbal wéral nu kattan na nu ban mën na suñu lépp nu mën ko jëmee ci jaamu yàlla ak liggéey sëñ Tuubaa ci lépp lu baax ah, kon nag jërëjëf maa ngi jégalu